sixième bi moo nekk sixième bi. kii daal waaw man ci bi waaw damay wax ci sixième bi rek ma pare si. en réalité Sénégal mooy li ma waxoon sànq bu ñu dem politique nit ñi du ñu seetaan man ma ànd ak ma ñàkk ànd ak damay wax li nga xam ne loolu laa jàpp sama akulaay taala mais si programme Sonko boo leen seetee ci seen projet ñoom bu ñu dem si kilifa diine yi wax wax nañ leen ne ñun suñu gañee en réalité sax ñoom yeggaguñu fa waxuñu direction ñoom ministère la ñu waxoon. Mhm. ministère des affaires religieuses. Mhm. boo xam ne dañuy wax ne day am budget day am lépp. Mhm. léegi nag nit ñi Sénégal yi souvent moo tax may jàpp ne fu mu nekk nii muy baax na muy bon na ñoom projet boobu lañ présenté Sénégal yi. nit ñi fal leen ci loolu foog ñu déroulé ko man am na lu ma ci d'accord parce que am na lu ma si jotoon am malgré le fait que bokkuma ci projet mais xam na li ma ci xam. ñoom am na fu ñu expliqué ñu ne exemple ki jàngee Égypte arabe jàng ba am master 2 exemple ñëw Sénégal mais ça pourquoi euh, tey ñu war a jàppee kooku waru mën a dugg dans la fonction publique wala waru mën a administrer comme yeneen beneen ci mm, asma léegi nag bu fekkee loolu lan lañ ciy xaar man boog lu ma ciy xaar comme ñoom ni ñu ko expliqué woon à l'avant ñu ne day doon ministère ba am day am budget am lépp mm. ça va régler des équilibres mm. parce que quoi que l'on ma doon am tey Touba day jot rek ñu xaw gars yi dem. amul traçabilité kenn xamul lu ñu ci def ak lu ñu ci deful. Tivaouane kenn xamul lu ñu ci def kenn duñ ci deful kenn xamul léegi bu fekkee mën na régler le problème des équilibres tey su nekkee un ministère mais ça c' est comme ministère bee de l' a vérifier au niveau des finances publiques mën a vérifier ce qui est fait ce qui n' a pas n' a pas loolu pour man ça sera bénéfice du peuple sénégalais.